responsabilité c'est un acte administratif alors que l'autorité administrative mhm. la plus élevée aujourd'hui c'est le président Maxal. et c'est lui qui a écrit pour le corps pour le corps électoral mhm. et nous, et ñuy le décret est attaqué mhm. parce que le décret est un acte administratif malheureusement malheureusement le juge a jugé utile de dire que la requête est irrecevable. Parce que si on est en matière électorale. Alors, voilà, merci. Hein? Donc, entre autres. Entre autres euh, et, hein? et, la dernière décision, et la dernière décision revient au Conseil constitutionnel. effectivement, loolu aussi sax euh, cour suprême wax. et aussi loolu aussi la ñu mu li ci gën a fës le Conseil constitutionnel les les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. loolu daal la gën ils sont applicables à toute autorité. à toute autorité judiciaire mm-hmm. judiciaire et publique. Mm-hmm. Mm-hmm. Omar euh, décision bi daf la bett wala euh, yow yaa ngi doon xaar vraiment mu mu mu dàq élection la décision d'une part bett non, parce que xam nga man musuma gëm ni indépendance de la justice amul Musuma gëm ni indépendance de la justice amna au au contraire. Mhm. mais ci situation biñ ñu ni, dama gëm ni Macky Sall mom kiyatul mënatul manipuler manipuler. <laughs> parce que yow dal yow daal da nga japp ne Macky Sall il est désarmé. waaw waaw il est désarmé. Mhm. Motax ma gëm ni ñom xam nañ situation réew mi fu mu toll que ni réew mi dafa nekk en crise te dañoo war a jàll si étape bi dem ci beneen étape. et que Macky Sall teewul ci dara. donc moom du nekk candidat on en a marre de campagne élection kii wax fii kii wax fële dañoo bëgg a dellu ci liggéey bi. je pense que Cour suprême boobu ñoom dañu am conscience ci loolu noonu moo tax ñu ni il faut en finir pour de bon. Mm-hmm. mais jàngat bi am solo ci mbir bi mooy Sénégalais yi xamaat ni politiciens yi seen intérêt rek. Mm-hmm. intérêt réew mi seen yoon nekku si. Mm-hmm. parce que waa PDS. leneen intéressé wu leen lu dul nañu bokk ci élection yi. est-ce que est-ce que bokk la sax est-ce que loolu la sax non c'est ça te li ma ci gën a métti ay mag jëmm. comme ay comme ay courtier non comme ay courtier politique quoi mais dafay 50 ans ci kii bi. Non, 26 ans d'opposition, oui, mais, ans de pouvoir, oui, ils mais, ans d'opposition. Mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais ça va. ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils accepter. Mm. ay mag dit quoi ay Ils intellectuel nous servir Ils Donc mm. fi ay courtier Karim Wade <laughs> non Karim di di ñuy Karim ci quoi. man loolu laa mënul comprendre. loolu mënuma comprendre Mamadou Diop kii il a servi il a servi la nation. Mm mais xoolal tay fi comment euh, la là mais c'est très grave. Eh, léegi déduire ci lolu moy gis nga and bi nit ñi di and Sénégal muy politicien, yi muy activiste yi muy nangam nañ ko and day doon c'est nawle and day idéologie ñu and doole combat avec la durée avec le temps nous avons gagné le combat boobu. Hmm. mais nous devons def toujours suppu gagner. parce que Sonko moo ñu indi fii ah. parce que mais moo mais qui Qui moom ci ñoom la bokkoon ah bon Mamadou Diop euh, ministre ancien ministre des affaires étrangères. Ah. Euh, ñoom ñëpp ils euh, sont coalition soppi lañ nekk. Ah. ils se retrouvent accidentellement. waaw pour yow c'est des courtiers de Karim quoi. C'est des courtiers de Karim Ward. Les doole bi ñu yor tey dama ni Sonko moo leen ko parce que moo leen qui ci euh, élection législative yi ah, yooyu wàllu mm-hmm. may leen ay député Faut que dinañ am au moins reconnaissance envers ça mais acte yi njëkk a posé rek mooy nañu xool lu ñuy def ba ba rey ko il faut ñu xoolaat coalition yi collectif yi fii juddu xam nga Nous ko xoolaat ngeen nit ñi nañu ànd ci ay idéologie fekk ànduñ ci ay idéologie nii lay mujjee da ngay ànd ak nit mm-hmm. mu xamal nga foog ni yéen a bokk combat fekk moom nu muy def ba gën la mën a combattre moo intéressé ci ande bi mm-hmm te lolou dafa feeñ ci Khalifa Sall dafa mm. feeñ ci euh, Barthélemy Diaz et cetera et cetera. Mimi Touré ah. Mimi Touré ñëpp ñom ñëpp. <laughs> xoolal tay euh, Serigne Diop le maire de Sandiara. Mm. il rejoint la coalition de Diomaye. té mom lan la taxaw wax ci télé bi Serigne Diop dari mom ku ko ëpp xam-xam du nangu mom mu koy jité mm. mo taxoon mu rejeté la candidature de de qui euh, de Amadou Ba léegi tey ñëw dem ci dem ci Diomaye. te xanaa kenn du ni am Diomaye moo ëpp xam-xam Amadou Ba wala moo ko ëpp expérience wala nangam ak nangam xam nga loolu contradictoire te contradiction la loolu mooy wane ni gars yi di daw yëpp di rallier xam nga lu leen intéressé nan la ñuy def ba bokkaat ci nguur gi di ñëw bokkaat si kii ci partage di gâteau bi après population bi nekkaat nii rek alors que man li ma intéressé dëgg dëgg dëgg ci gouvernement bi di ñëw moo ñu def la révision des comptes ku sàcc alalu réew mi ñu nangu ko kuñ ci war a tëj tëj ko kuñ ci war a nangu Macky Sall moom buñ ko tëj mais nañ nangu xaalisam ba mu des deux cent mille rek baax c'est ça non policiers yi dañuy dof loo alors très bien dernier tour de table Pamakura on va à des à des élections finalement euh, nan ngay entrevoir. pour l'instant hein? <laughs> bon. Euh, bon. bii yaay tant que waxoon suba la élection yi teel ñu voté ñu xëy suba affaire yi génn.

80 jours nga war nga jàpp ko avant boobu. ah mais def c'est inédit hein aussi. moom laa la moo tax mu ne la situation bii tey. ñàkk dem élection le 25 février moo ñu dugal fii. moo tax lépp lépp Macky Sall ak ak moo tax amul situation d' exception lañu. waaw mais wax ko aussi. ah lépp Macky ak Karim de la dernière chance. non non non non non non

mais dossier. bu ab leen Mbow. waaw waaw. mais dossier bu ñu leen yóbbu. Ah. amul kenn ku signé ne yaay maa jiñ Amadou Ba ne moo sàcc. waaw ah. léegi moo mooy corrupteur. léegi président de la république ci boobu la sukkandiku. Mhm. renvoyer élection jël décret loolu mooy indi problème bi. est-ce que mën nga njort tamit ba mu demee ba mu xam ne nii lu gars yi di tuuma amul tax na moo tax mu jàppal beneen décret. <laughs> est-ce que ni mën na njort loolu. en tant que préalable bu dee boo xam ne lu ñu ko jaayoon jarul. waaw xam ne ndox mu jàppaat décret. Ah, ban décret. bu le 24 bi. Ah, ban le 24 bi. le 24 bi balaa mu koy jàpp daa dem élection. Ah. daa dem daa dem ko nu mu tudd. Euh, négo dialogue mu jógee dialogue ba pare bind. conseil concerné ne leen est-ce que lii mën naa ko def est-ce que lii mën naa ko def mën naa ko lii mënoo ko def mënoo ko def mu jàpp dat. il était obligé. amul pexe bu jàpp dat. est-ce que nekku lu loolu est-ce que nekk processus muy muy continuer ba tey man dama jàpp ne président Macky Sall lu doon bañ mooy ëllëkat si biir ñu ne am na candidat bu gagné premier tour ñu ne ko mënoo gagné. mu def nii moom. man man loolu laa njort ça ne peut pas justifier ça. laa njort. amaan ah. nag nekk ma si xelam. non non non xaw ma lu demee noonu waaye mën naa njort loolu. dama ne fu mu ne nii processus bi mu ngi continuer ñaari mbir yi ma la wax nii moo tax source bi dootu amati te yàlla na si yàlla musal. Hmm. su dul le 24 bi nañ jàppale élection même le 24 buñ ko toxaloon sax conséquence na jàppoon na le 31. bindat convocation. moo tax ma la tëjoon tëj na ah en tout cas comme comme j'ai dit là ma nga bay bëri bañ bëri bëri fañi fañi waaw <laughs> euh, dernier tour table euh, Pape jibrin Ndiaye nga tàgg tàgguwaale hmm? euh xamna limay ci élection yi waaw nan nga ko entrevoiré euh, voilà non c'est que xam nga en fait li li li ma ko wax sank hmm. c'est ça man ki ki m'anime gis nga man tank dew ma ci urne yi ba dugal sama carte ma <laughs> <laughs> duma ko benn parce que bu ñu xëyoon suba na na Macky Sall démissionné mhm. duma ko duma ko wette et ça je le sincèrement xam nga dañ nek situation bo xamné c'est une situation inédite uh-huh. pour la première fois. causé par le président il faut le dire aussi. non causée par le président de la. non causé par les acteurs politiques. non non non causée par le président par les acteurs politiques xam nga lan. il faut ngeen ngeen nangu aussi. non xam nga président Macky Sall xam nga président Macky Sall. Ah. man ni ma koy ñaanal yalla ah. na dem si jàmm. c'est ça parce que moom li mu def def na ko fu mu toll ñun ñu war a teewaat réew mi attention bu la fàtte ah yéen a ngi nii yéen ngi naan wóoru leen wax parce que dafa dafa situation mooy extraordinaire mais tey benn yoon la mën a jóge non ah, ngi wax yëpp di may général waaw xam nga ñu ngi wax on dit que le kandam kala un bala de hmm. et gis nga ci bir benno sax droite. parce que oh, parce que personne ne comprend rien. Hmm. je dis mais personne ne comprend rien. Hmm. parce que le candidat bi nga sax donc c'est opposition sax tay ni togué sax tay di di avance sax ni pouvoir ni ni

et man parce que c'est la première fois aujourd'hui au Sénégal nous avons un président sortant qui n'est pas candidat ba noppi xew et man aujourd'hui j'interpelle encore une fois ñun sommes une classe politique il faut que ces genre de situation nous ñu qu'on ko heureusement ça offert ça de parce que les ku nekk ñaari mandat nga def donc deuxième mandat deuxième mandat il faut que gars yi à anticiper sur ces sur ces questions là sinon comme après nous am des jurisprudences des à ne à plus en finir et là le ko donc lui me bëgg wax en tout cas su remercier ba noppi mhm di inviter en en tout cas toute la classe politique à plus de sérénité. Mhm. mais aussi di wax niti aussi nañu am yenn jikko yu rafet. li Omar Sarr wax sànq dama koy accepté ak moom doo bàyyi ba xamni njit njiit mi kat dafa wara a nga xamni ne nga alors que yow tu as tout goûté. Mhm. je dis bien vous avez lepp nga lek amul lo bay da nga lek ba séñu mhm. léegi nga xam nak léegi yow ki la joxoon nga lek ba séñu tay nga wultu ko tay diko wax lu ñaaw diko xass bu nopi dem ànd ak koo xam da nga japp ni mom moy

te fekk parce que président Macky Sall wax il a fait de belles réalisations Le teg na Sénégal sur sur les sur les rampes de l'émergence, mm. ñu gor gor nak pour génne ko nak totalement euh, pour que suñu rew stabilisé wu euh, au plan international gars yi gars gën ko jox cër ñu stabiliser encore toutes les institutions ñu xam Sénégal euh, il est parti pour être en fait pour être en fait nak parmi les les pays les mieux cotés en en tout cas mondialement. jaajëf daan gënoon di fàttali rek ne ce ce sa président Mamadou Fall non non mon coordonnateur sa coordonnateur Mamadou Pape Mamadou Fall mm. il fait partie des deux premiers qui créaient le PASTEF ah, ah oui c'est une information que j'ai avec Matar Sen de de, de Diourbel ñoom Ousmane Sen Ousmane Kane Ousmane Sonko n'est pas membre fondateur du PASTEF Pape Mamadou Fall et Matar Sen Ils sont les ñu ans. may ñoom ñu ngi may ñoom ñu ngi donc ñoom ñoo dem jëli Ousmane Ousmane Sonko ne ko ci ni nga melni bëgg nañ tay projet bi ñu am nga jité projet donc loolu mo indi Pastef après le, le syndicat le syndicat est venu alors euh, ñu ñu ñu mujjee ñu mujjee euh, ba légui yow ci élection yi di ñëw nga nga tagwalé hein euh, Omar Sarr ginnaaw bu ñu la jaajëfale waaw di wax ni euh nañu conscient donc mm-hmm. lan mooy nekk sen position jour élection en tant que nitu deug waaw ñun mom euh, comme d'habitude élection bu ma sa am. Mhm. ñu dañuy wax d' abord tout sauf Macky parce que ñun du ñu ànd ak kenn. Mhm. mais système bi tax bi taxoon ñu ñu créer mouvement nekk ay activistes di xeex. Mhm. mënuñu retourner wu di ko di ko di ko soutenir. mais ñun en tant que mouvement de ñu invité kenn pour mu voter kenn. parce que politicien yi da ngay dala li muy def du la ko wax te li muy wax du la ko def. su su su boobaa ay ay déception rek nga ciy jëlee mais li ma bëggoon wax mooy nañu nañu conscient nañu dal nañu def. tout sauf Macky Macky bokul waaw Macky mooy Amadou Ba. Ah. Macky mooy Aly Ngouille Ndiaye. Macky mooy Boun Abdallah Dionne Macky mooy Mambo Diaw ah oui tout sauf quatre personnes yooyu noonu. Mimi Touré du Macky. Mimi Touré Macky la mais Mimi loolu. <laughs> du candidat mais du candidat. c'est très important moo tax loolu laa bëgg a wax au-delà de élection yu dal yi lu ma bëgg li may woo Sénégalais yi ñu moytu violence bi et tout damay wax ni impunité duñ ko accepter. amul kuy ñëw tey sa parti suba nga yor réew mi nga ne yow doo xool ay kontam loolu duñ ko nangu. Hmm. loolu ñun su naree am mooy nekk suñu prochain combat qu'il soit mi Mimi Touré qu'il soit Mary Teuw Niane qu'il soit Pape Samba Mboup mi fa dem barki démb. Hmm. ñoom ñëpp ni ñuy woowee ñii def ak ñoom laaj leen seen i compte régler affaire yi noonu lañ leen di woowee rek ñun loolu ñuy exiger. boobu ba léegi nag maa ngi koy jooytu mais booy Pastef ñu ngi naan ma non. oui mais jàpp naa ne quand mais jàpp mais jàppal ne quand même bu fekkente ne Mimi am na lu mu def gars yi kon gars yi génn nañ ko bu yàgg. ak ak situation politique bi. non bi mu génnee yàggul. ah yàgg na de. ah non yàgg na yàgg na de non yàgg na. Mimi Touré barki yow les dernières élections Mimi Touré moo jàkkaarloog Sonko. ni ko la dara ci. ah tey tey tey la même personne moo jàkkaarloog. mais gars bu ñu amoon dara ci Mimi gars yi bu ñu amoon dara ci ah, gars yi bu ñu amoon dara ci Mimi dañu koy génne boo ma ali Aly Ngouille Ndiaye yàggul boy Boye Ndiaye yàggul ak kanati ça va conseil économique la moom laa la bu génnee gars yi commencé woon nañ ñu ko yoroon génne nañ bu yàgg. waaw mais d'accord léegi corps de contrôle bu solide ay gars yu dëgër yu sadik. am nañu bu jël alal bu corps de contrôle solide moom. ah am na ah, corps de contrôle exécution mooy des voilà ñu ngi noonu. of ah. ah. ci invitation bi. merci beaucoup on est ensemble. di nuyu sénégalais yëpp di nuyu waa mouvement Nitu Dëgg. di mm-hmm. leen ziar. jaajëf Ba Makoura merci. waaw di kontaan trop bi yi. di ñaan yàlla yàlla aar Sénégal. ci ay noonam yu nekk ci biir réew mi ak yu nekk ci bitim réew mm-hmm. merci Pape Djibril Fall Pape Djibril Ndiaye pardon. non benn sax Pape léegi moom très yi gars yi dañu naan Pape Djibril Fall. donc donc donc vraiment da ngay bàyyi jàll rek. depuis depuis Abdoulaye. yëpp yëpp benn am solo rek. mooy na yàlla def ànd bi dëggu. Hmm. yàlla def aussi euh, Sénégal comme ni ko Macron waxee Sénégal nekk si jàmm. Hmm. di wax aussi euh, nit dëgg aussi nañu gën a góorgóorlu rek si hmm. dëgg parce que. Euh, avoir le monopole de de dëgg man fu metti donc na leen si yàlla gën a taxawu jàppale leen hmm. yow aussi yaay di ñaan yàlla yàlla defal la jàmm ci weeru koor bi ne di ñaan yàlla Sénégal euh, yàlla def ñu yor si jàmm ñu fal suñu njiitu réew si jàmm hmm. et que Sénégal nekk réew boo xam ne moom la Sénégalais yi gënoon bëgg a hmm. lépp si war rek ñu def ko en tout cas maa lay euh, remercier bu baax a baax ci invitation jaajëf ñu di gërëm bu baax a baax yéen tamit seetaan ci télé bi ci canal 12 mais également sur internet toutinfo.tv, info euh, point tv euh, ñu également ci euh, li Facebook Instagram leen di bu bi campagne électorale Nous avons campagne révisée merci à la rédaction merci également à